ci silsilay waxtaan yi nga xamanteni amal nañ ko depuis lundi passé ci occasion wu anniver semaine internationale u Cheikhna Ahmed Tijani Chérif radiallahu taala anhu mu melni alhamdullilah defon nañ ay waxtaan ci wolof def ko ci français def ko ci anglais def ko ci arab démb ñu def ko ci pulaar yaakaar lool yep day wone universalité bu Cheikhna Ahmed Tijani radiallahu anhu suñu yàlla dimbalé ci yeneen édition yi di ñëw dinañ ci bolé lu mel ni séeréer dinañ ci boole lu mel ni xawsa dinañ ci boole yeneen luxa yi yeneen luxaat yi bokk yeneen langues yi ak dialectes yi incha allah danañ ko utiliser ngir gën a wane doole ak tasaaroo mission bii nga xamante ni moom la Seydina Mouhamed jëlee ci yàlla teg ko ci loxo sunu sëriñ Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu su ko defee nag alhamdulilah rabbil alamin tey nag. ah ragal naa ñëpp ñëpp a ngi ci yoon wi di ñu di di waaj ndax bu démb ba tey bërki démb sax laay wax ba tey ba ma defee introduction waxtaan wi ba tey fu nekk jote naa fa message fu nekk jote naa fa appel fu nekk jote naa fa ay ojo ngir leerlu ci wax ju yi ji ñu wax jëme ko ci waa yi réy ak waa ju réy kii di Seydouna Mouhamed kii di Seydi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu su ko defee incha allahu taala euh, am nañ mbégte mu rëy euh, ci jàkkaarloo ak yéen euh, waaye ñu nit ñoo ngi jàkkaarloog sunu mbokk seen mbokk Mouhamad Dia at Tidiane macha allah moom comme Racine Ly comme Thierno Omar Kane comme Pam Ndongo comme Ibrahima Diop comme Babacar Touré ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi fii ak waa Sénégal yi. xaaj Makhtar xaaj Ndiobu xaaj Ousmane Sembène ak ñu mel ni ñoom Babacar Cissé infographiste yi ñoom ñoo ñu jàppale ci liggéey bi euh, tey Mouhamed moo fi nekk ànd ak ñun incha allahu taala pour quelques minutes ñu bokk waxtaane euh, njariñal bëgg Cheikh Tidiane waaye tamit waxtaane danger wu bañ Cheikh Tidiane yi ak bañ Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu jox Seydina Mouhamed ja at Tidiane yi mu nuyoo su nuyoo ba noppi ñu soog a dugg ci waxtaan wi tey nag comme ni ma leen ko waxoon waxtaan wi waxtaanu euh, dialogue la waxtaanu jokkoo la waxtaanu échange la moo tax di ngeen gis beneen format boo xamante ni bokkut ak format yi daan am bu njëkk man maa daan toog rek di dem tey nag sama waaju baax ji borom cofeel gi ci yonent bi ak Cheikh Tidiane mom la wara bokal tay jotay bi donc ñoo seddo séddoo ñoo koy muy wax may wax may wax muy wax ñuy poser des questions ba lépp leer inshallah taala sayyidna mohammed bismillah tafatal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ma ngi leen di ziar bu baax man la mohammed Dia Tijani sen mbokk euh ànd ak serigne bi tay rek ci semaine internationale Cheikhna Ahmed Tijani Chérif radiallahu anhu bi ñi def fi ci Paris xanaa eh, di ndokkeel mbokk yeb ya, rek ci semaine bi eh, ak ci anniversaire Safina bi ñuy def ni tay ni mu tombé ni daanaka dal ci secret yi la rek tabarakallah donc mm, ma ngi ndokkeel mbokk talib yeb di di ziar ñep tay nak mom serigne bi dafa wara waxtane waxtan bu ama ama ama ama solo ci ci mahabba eh, na Ahmed Tijani Chérif radiallahu anhu ak eh, ñi nga xam ne dañuy wax li nga xam ne daal kenn mënu ko wax di ko jëmale ci ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak eh, suñu sëriñ Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif donc ndokkeel leen bu baax rek ne xanaa di dellowaat sëriñ bi kàddu gi eh, di ko déglu ngir jàng si bu baax ci semaine bi muy semaine suñu sëriñ suñu lépp Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala جرجف إمام محمد جاه التجاني الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد تاي ياكرنا جايب صوبي شيخ يب أجستو كاتي برام خم خمي بق نيبق خم خم يب نيونغي توك دي خار نخ لنيو وخ كروك بركي دمبو دفري te léeg am na ci bopp yum diis ba ñu bari woo nañ ma di ma laaj loolu waaye ndekete euh, mbir dina garaaw fekk la koy ubbi tuuti la am na ñu ci bëri dama leen yebal ci alxuraan rek dañoo liir ba pare daal ne ma ah bi wax nga dëgg waaye incha allah yéen ñi may suivre tamit suñu àggalee léegi di ngeen na wax ne sëñ Mor waxati na dëgg ndax képp ku génnee ci école Cheikh na Ahmada Tijaan yi dafa am principe boo xamante ni doo ko fowee Cheikh Tijaan neen na إذا سمعتم عني شيئا فبزينوه بميزان شرعي ما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه ñun lool moy suñu principe de base Cheikh neena lo leen deg ci man ak ci tarixa bi mune na ngeen ko mandaxé na ngeen ko peser ci balance sharia su tolo man la su wouté ak sharia rek xam leen du man lool moy lan Cheikh dafa inviter ay talibem tarbiya leen yar leen ci lépp luñuy wax ñu bañ ko tek ci bakken ah waye ñu tek ko ci alquran tek ko ci sunna sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam kon nak lool rek mo wara dalal xel mbok taalibe yi waaye balaa loolu ngeen mayat ma ma jaar fi sayyidina muhammad jaar moy ndokelat julit yeb ndokelat taalibe tidiane yeb ci semaine internationale bi nga xamanteni ni euh lañ ci doon njort yeb yàlla defal nañu lu ko ndax gëstuwaat nañ cheikh jangat nañ cheikh tuddat nañ cheikh photo yi cheikh yi tasaru nañ ci kaw suuf photo yi setemi tasaru nañ ci kaw suuf photo yi zaawiyam bi photo yi muqaddamam yi photo yi xulafaawam yi photo yi sax ñi ko sopp ñëpp sax tasaaru na ci kaw suuf mu mel ni loolu rek yaakaar naa budul woon sax waxtaan yi ñu ci def ak jotaay yeeg yooyu yëpp loolu rek doy na sëkk incha allahu taala kon nag alhamdulilah rabbil alamin la ñuy wax ci loolu yàlla defal ñu beneen tamit ndam ak cër mooy safinatul fuqara mouvement bi nga xamante ni ñun ñëpp ci leen tënku alhamdulilah sosam ci zahir mooy date bii tey jii ñoo nga ca Bargny di ko def war a jàng alquran war a def wazifa war a def ay zikrullah war a tudd yonent bi war a tudd Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu euh, di ci ndokkeel baax euh, waa safina yëpp le coordonnateur général sëñ bay Fall Ndiaye ba ci ki mujjee bokk ci mbooloo mi waaye tamit di ndokkeel section yëpp ba ci bitim réew waaye tamit di ndokkeel sëñ Cheikh Dieng mi nga xamante ne ren moom la yàlla jox ndam ñuy defee foofu yëf ya di ñaan yàlla kenn ku ci nekk la ngay sàkku ak la ngay njort ak la ngay yaakaar yàlla tekku ci sa loxo bi jay Seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni mako junjé démb rek ci audio bi wax leen rek ne leen li waaja waxoon ne ibaratuna shatta wa husnuka wahid wahid c'est-à-dire que explication yi ñoy bari rek ak façon yi ak manifestation yi way mbir mi ben la safina bi moy safinatu nuh Seydina nuh safina bi moy safinatu Seydina Muhammadin moy la ilaha illallah safina bi mooy safina Cheikhna Ahmad tijani radiallahu anhu mooy tariqa safina bi tamit mooy safinatu saada bu Cheikh Alhaaji Omar al Fuuti mooy dox ba tey jii taala ñu ñaan yàlla képp koo xamante ni yëg nga ci gaal gi di safina yàlla na nga teeree aljanna te loolu rek lañ ci yaakaar su ko defee suñu jallé ci loolu dañuy ñëw ci waxtaanu tey bi muy waxtaan woo xamante ni war intéressé na ñëpp waaye lu mu intéressé nit ñi rek tuuti na ndax dafa am ñaari volet yu ci nekk benn volet bi mooy volet passif bi la ak volet actif bi mooy ñi nga xamante ni dañoo bëgg Cheikhou Tidiane te sax daanaka euh, mënuñu sax expliquer nan lañ ko bëggee ak ñi nga xamante ni dañ koo bañ te mënuñu expliquer lan lañ ko bañee ñoom ñaar ñëpp la ñuy waxal tey moo tax waxtaan wi kuy Tidiane ak ku dul Tidiane war nga ko déglu ndax njariñ mën na caa feeñee incha allahu taala te am na loo xamante ni ku ko xam dootoo dugg ci ay yenn njuumte yi ak yenn bêtises yi nga xamante ni moo yëngal jamono.

nuire à la stabilité de notre pays et de la sous-région. loolu c'est automatique pour pouvoir profiter des des des des des richesses minières pétrolières de de de l'Afrique et du Sénégal Yakarna, naa euh, loolu coup d'état a que, ak ak ak ak forcing bobu, ak deal boobu ak plan bobu, yakarna, yakuna. Coup de ku déglu waxtaan wi di nga xam li xew yàlla nañu yàlla boole dimbali loolu la fekk na ñun nañ ko. yee nañ ci jaboot gi waaye ñu bëri dëgër bopp moo leen jàpp su ko defee dafa am euh, ñaari mbir yu ma bëgg a leeral rapidement su ma ko leeralee soog a dugg ci waxtaan wi ci ñaari poñ ñetti poñ ñu daal di dem incha allah seydina Mohamed kon benn bu njëkk bi Mohamed mooy ci ngoon rek am na benn mbokk moom moo woo dama laaj ne ma le mot tijaan mooy lan. Mhm. parce que dégg nañ Thiès léegi koo nuyu sax rek mun la tijaan yi mhm. <laughs> mbokk yëpp kuy bind tijaan yi kuy way tijaan yi ñëpp. koo dégg rek mun la tijaani tijaani ñëpp mu ne ma waaw lan mooy tiijaani ma ne ko tijaani day am na ci wàll goo xamante ni moom duma ci dugg kooku baatin bala am na ñu ci habilité ñoom mën nañ ko wax le mot tijaani am na baatin bu garaaw a garaaw a garaaw bu ci nekk moo tax ñoom ñëpp nitu yàlla yëpp dañuy préférer lu ñuy def ñu bind ci at tijaani ndax am na lu muy signifié am na benn connexion bu mu am riqatul muhammadiya aw kooku nag yaakaar na dama koy bàyyeeg ñi ko war a wax ñu wax ko bi zahir bi laa leen di wax mooy euh, muhammad soo demee fu mel ni saalum saalum soo amee euh, soo soo sa doom da koy askane da nga koy dàkkantele yaayam comme tey ji ñu naan moor Awa walla wala Mouhamad loolu mooy wane ni yow diw moo la jur mhm. arab moom ci bàyyi lay askanale muhammad ibnu abdillah gis nga mhm. abdullahi ibnu abbas abdullahi ibnu omar abdullahi ibnu abi bakrin seen bàyyi lañu ñuy askanale mhm. wolof li ci ci ndey lay askanale ah d'accord loolu yaakaar naa leer na donc euh, comme ahmad dafa bari ci arab yi cheikh tijaani radiallahu anhu moom ñoo ngi ko tuddee ahmad léegi nag pour différencier ko ak ñeneen yeneen Ahmed ya fa nekk ñu askane la ko yaayam yaayam moo ngi bokkoon ci benn tribu bu ñuy wax Tijana ci Algérie mhm. danga wax ci mhm. Tijana tribu la léegi Tijana boobu du ne waaw kii kii kan la ñu ne kii mooy Ahmed bi nga xamante ne yaayam moo ngi bokk Tijana jeex na Tijana mooy dox ba nekk Tijane yi mhm. jeex na Mhm. wala tour tamit dañ koy déformer mhm. non lay démé ñun ñi amna maintenir. xamanteni ni ñun jagana lañ sant am fo xamanteni ni lañ sant mhm. amna fo ni lañ sant maintenir. ño xamanteni ni sant amna ño sant kon sant fenn waye Cheikh tijani kon tijani, maintenir. Nous xamal ni tribu askanu yaayu Cheikh tijani mooy Lalla Aïcha d'accord? Mhm. légui nak le mot Tijani ça vient de Taj. Taj moy lan moy couronne couronne kan moo koy takk Mouhamad. couronne couronne en anglais. Le nga xamné mo moo moy roi. moy roi wa roi ak reine ñoy tak couronne. Mhm. ki Taj moy couronne. Mhm. légui nak ñom dañ né askanu euh, yaayu Cheikh Tidiane ñom dafa melni yalla yàlla da leen couronne. xam-xam ak leer ak ragal yàlla ak ak ak topp yàlla topp sunna ak ak deretuk shérif moo tax ñu jël taaj boobu mooy dox ba nekk tiijaana mooy dox ba nekk tiijaan yi loolu moo tax euh, ci explication tiijaan gisoo ni ñu fonkee mbax na mhm. fonk kaala même Cheikh Tidiane bi muy jëli xatmiya ah ca Arafat moom moo ñu expliqué Cheikh Tidiane ne euh, radiyallahu anhu mbaxanam leer mu verte lañ ko lañ ko solal mooy taaj boobu donc loolu junj la ak yeneen i tegtal yoo xamante ne day wane ni euh, euh, mbaxana moomu moo ngi ci bépp taalibe Cheikh Tidiane yi même bu dee solo mbaxana nga def bopp neen nii mbaxanam leer googu moom malaayika yi dañ koy gis nitu yàlla yi dañ koy gis ah gaa yu baax yi dañ koy gis ndax dañ koy def ci sa jë def ko ci sa bopp def ko ci sa xol ba su ëllëgee yomal xiyaam mooy nekk sa euh, jàlluwaay ci berzax waaye mooy nekk sa jàll jàlluwaay ci aljanna kon loolu rek laa bëggoon leeral bien que am na yeneen explication yu dul jeex waaye lii yaakaar naa leer na Mouhamed wala déet. waaw leer na waaw kay moo ngoog. kon daal ñaari point nga nga ñu soulever ci genre bi. Mhm. benn bi mooy euh, si fi mu askanal fi ñu ko askanalee daal. Mhm. ci yaayam. Mhm. Lalla Aïcha. beneen bi mooy euh, le fait que ñoom daal dañu dañu accepté woon ñëpp dañ d'accordoon ne ñoom ñoo jiitu ci xam-xam ak ci. ragal yàlla ragal yàlla. ak topp yàlla topp yonent bi

di garal Cheikh Tidiane wala muy garal tarixa Tidiane nan ñom de dañu xép sen bop xép sen nit ku ñuul ba wacc fi xawma lan ak lan wala jëluñu nangam nangam dal di dem topi ji ab nar lolu wax wax ju ñuy dégg la surtout ci koru ren gi topi ji ab nar lolu lañuy wax wax joju wax ju ko gëna ñak teggin ci kaw suuf musuma ko dégg Mohamed lolu grawul garaaw na trop kay topp ji ab nar mhm. la ilaha illa allah topp ji ab nar waaw <laughs> daño xaw dem topi ji ab nar deug mais amul nar amul nit ku ñul amul français amul anglais amul bañaamulenge mhm. amul fen deug deug rek la mhm. haqq maqbulun walaw min jahilin deug dañ ne dañ koy nangu même bu dé ci ab jahil la juggé wala même bu dee ci ab dof la jóge gars yàlla yàlla rek la ñuy wër seetuñu couleur de peau seetuñu fan la xeesee fan la ñuulee déedéet te loolu preuve yi dina ñëw léegi parce que tarixa tijaan da ngay ñëw fekk nit ku ñuul kukk ay sëtu yonent bi sukkal ko ci suuf toog ci suuf hmm. ah waaw xool leen télé bi xool leen histoire yooyu du naa ci ñëwaat après ba mu gën a leer waaye loolu c'est très grave lii wane ni wax jooju wax ju dangereux la te ku ko wax soo wattuwul da nga xalku àdduna ak àllaaxira mooy lan mais yonent bi am naar la <laughs> bu dee dañoo jéggaani rek mais l'islam dañ ko jéggaani l'islam ñun judduwuñ ci de sunu baay yi judduwuñ ci de sunu maam yi judduwuñ ci de te te gis nga xoolal ñooñu ñooñu ñuy wax loolu pour défendre leen ñoom ñëpp koo ci gis say say taalibe dinañ fexe yi ba ne sëtu yonent nga

deuxièmement même Cheikh Tidiane su dara mais surtout yonent la ormal ngir voilà mhm. wala mhm. budul dara Cheikh Tidiane ab la war nañ ko Cheikh Tidiane nit la war nañ ko ngir Cheikh Tidiane borom ans mufti du moromu ñii ñuy wax waxuma la sax moom mais taalibeem yi duñu moromu kenn taalibeem yi gën a ndaw waxuma la sax taalibeem yu njëkk yi sa xel a dem ci ay Cheikh Alhaaji Omar ak Cheikh Alhaaji Malick Alhaaji Ablaye Niass ak ñooñu déedéet waxuma la ñooñu de ñii dund laa wax fi mu ne nii am na ñuy dund taalibe Cheikh ay muqaddamu Cheikh ay xolofaawu Cheikh yuy dund amuñu 60 ans ñoo ngi dund billaahi doo dajaloon borom xam-xamu adduna bi yëpp ñu jàngal leen pendant 50 ans te seen xam-xam du jeex y a des preuves y a des preuves tu peux voir wi dinaa leen jox preuve yi mm. te ñooñu kat li ma leen di wax ay ñoo ngi fii dund six ans la ñu am cinquante ans ni mm-hmm. ñoo ngi Égypte ni ñoo ngi ay Nigéria gii ak Mauritanie gii ak Sénégal gii mm-hmm. ñu ndaw donc c'est il faut il faut faire attention avec certaines déclarations avec certains discours yal nañu la boole dimbali loolu laa bëggoon mu leer ba noppi ñu soog a dem ci euh, le point bi le point bi Mouhamad Euh, xanaa rek sëriñ balaa ngay dugg ci waxtaan bi. ci mhm. ñetteelu bi. Mhm. am suñu mbokk Serigne Baye mhm. question. bismillah waaw mi ngi l'humilité et le désintérêt étaient des traits saillants de notre maître Aboul Abbas à tijani sherif radiallahu Aujourd'hui, on constate la floraison de nouveaux aspirants orientés vers la quête de titres, du voyeurisme avec à la clé l'ijaza et itlaq est-il impératif de retourner vers l'authenticité du lait de notre vénéré maître Cheikhna Ahmed Tijani Chérif radiyallahu Wow waaw question boobu daal lay laajte. Si kooku suñu mbokk Baye Dame Baye Dame Mbengue ñoo bokk xadara moo nekk consulat suñu mbokk mu baax la Maroc la nekkoon suñu soppe la c'est un grand penseur un grand philosophe jàmbaar la toujours day dugg te du question yu yu graaw lay lay lay kii. Mhm. lay soulever et muy laaj sax xam na ko waaye day bëgg rek nit ñi gëna xalat mhm. waaw euh, su la neexee ma tontu su la neexee ñu dem ci benen point ba ba paré ma tontu ko. waaw mun nga ko tontu bu guddul dal comme ça. waaw dama koy teunk suñu ne suñu demee ñu ci fin ba. parce que koku dama ko bëggoon def kii moy problématique bi. foofu laa ko bëggoon a yóbbu. mais mën naa ci tontu de manière très sommaire. suñu paree ca problématique ba ma ma ma yaatal ko foofu li li mu bëgg wax foofu euh, Moi, gis nga que Mohamed lay wax lu doy waar sunu fait Ziyari en 2007 19 personnes il y avait 2000 participants à cette rencontre de tous les tijani du monde il y avait 40 pays les plus grands penseurs les plus grands savants du monde ñoo fait la dialogue. ñu def fa sunuy fan fukki fan ak euh, juróom-ñeenti fan def fa lañ fa a def yëpp ba ñu ñibbi ba waa dëkk ba yëpp ñëwee ca saal ba pour ziar si mu Mounirou déglul bu baax li sëñ Mounirou wax taalibe yi boobu ñoo ngi xaar discours bu gudd discours bu bari discours bu doy waar déglul bu baax li mu Mounirou wax. ah alhamdulilahi rabbil alamin dem nañ ci bismillahi rahmaani rahim ñibbisi nañ ci alhamdulilah ziyaare nañu sunu soppe ba Cheikh na Ahmada Tidiane ziyaaral nañ leen ko ñaana nañ leen fa am nañ njort ne yàlla dina nangu ñaan ya waaye yéen ñëpp maa ngi leen di xamal ne maa ngi leen di xamal ne képp koo xamante ne yaa ngi yëkkati sa mbagg rek amoo cër ci Cheikhu Tidiane mu Mounir ko rek loola déclaré mm-hmm. mu ne soo bëggee xam ko am cër ci Cheikhu Tidiane xolal ndax ëmbal na billahi li la wax wax joju tasaaroo na ci ciess yep ci aduna bi yep kon pour rejoindre wax moy balance kay bu mag bi humilité simplicité modestie sobriété deg nga wacc mok dal moy marku njabootu Seydi Ahmed Tidiane man bima ma Maroc en 2003 comme étudiant Cheikh Tidiane maa ngi ko tegoon sama diggu bopp bi toolu terme arabe la pour wax leen la respect bi ma am ci moom yàlla rek ko xam mais Mouhamad ba ma ñëwee ca zaawiya ba buntu zaawiya ba ba dugg ci biir zaawiya ba sama premier visite laa lay wax de ba fekk njabootu cheikh yi ñu toog ca suuf ñoom ñëpp ma dugg ba ca biir boobu boobu buntu rawdu bi ci boppam daanuñ ko tëj ma dugg ba ca biir ba tiim Seydina radiyallahu anhu question bi ma posé waa ji ma doon dimbali doon gunge dama ne ko ndax kii mooy Cheikhu Tidiane ma ma daan way di daanu jël ngir moom mu ne ma billaahi Cheikhu Tidiane a ngi mu ne ma ta question bi nga posé ku fi ñëw te sa yàlla nangu sa ziar di ko posé mooy Cheikh xoolal simplicité bi mu am sunu rawdu maam yi moo dàq du Cheikh Mouhamed dam nga fas loolu ma wax am na wala amul. dëgg la wallaay doo taxawee bala ngay dugg buntu Cheikh il faut que ay mbaam romb la. Mhm. il faut que ay mule romb la mooy berkelle. il faut que ay fas romb la. ay commerçant yu yor ay euh, poule kii euh, euh, ay yu nu tane nuñ koy waxatee der yu ñu wulli romb la. nga dégg brouhaha bi ak bruit bi nekk ca marché ba ndax Cheikh moo ngi làqatu ci biir diggu marché. dëgg pour pour kenn bañ koo xam. ci biir suuk bi ci marché bi. Mhm. loolu li ma leen bëgg wax foofu mooy marque indélébile bu Cheikh na Ahmada Tidiane mooy simplicité. Mhm. gisoo fa benn shérif buy toog ci kaw ñëpp ci suuf mhm. la ñuy toog. wasifa yu ñëpp koy bokk ñoom ñëpp ñoo ngi ne groupe tëdd xam ni waa ji kenn du yëkkati mbagg ndax waxoon na ko mu ne ah jaas yi de ñoo ngi naaw ci jaww ji ku yëkkati sa bopp mu dagg ko. loolu yaakaar naa gars yi dañ ko déggul. nañ def attention kon dellu ci authenticité dool dellu ci orthodoxie dool dellu ci simplicité bu Seydi Ahmed Tidiane parce que ñun suñuy cër du fii ëllëg la yomal xiyaam ci kanamu yàlla mhm. li ñuy am nii yëpp ci am maqaam ak cër ak maarifa doole lépp dañuy mosal rek waaye la ñu war a am dëgg ci biir bari sax la ak ëllëg suñu demee ci kanamu yàlla ndax dëgg-dëgg mbir mi foofu la àjjanaa ngi nii safaraa ngi nii ci la xam gars mais fii du ci àdduna mhm. kon nag euh, loolu moom laay wax nañu def attention euh, am na ñoo xamante ni moom euh, waxuma la sax c'est des <laughs> dañ leen war a yóbbu interne leen bëgg dara bëgg cër bëggu ay mbóot bëgg xaw ma euh, ay titre ijaasa ak titre xaw ma lan nekk taalibi cheikh moo ëpp doolu loolu yëpp alaaji Mouhamed Ndiéguène de radiyallahu anhu moom de daan na wax ne xutbaan ya nekk xut bu nekk taalibi cheikh Tidiane moo ko gënal billaahi nekk xut bu zamaan nee na nekk taalibi cheikh Tidiane bu cheikh Tidiane nangu sama taalibi moom ko gënal jeex na ndax ñëpp ku nekk mën ngaa nekk xut bu zamaan waaye du ñëpp mën a nekk kon fofu euh, lañ koy yemale inshallah duñ ñëwaatee ci problématique yi ñu wara poser ak perspective yi inshallah ci taxaway bi ñu wara am ñun taalibe Cheikh Tidiane yi Cheikh Tidiane ci euh, défendre le leg Tidiane la la l'héritage de Cheikh na Ahmed Tidiane inshallah dinañ gën yaatal fofu yal ñu yalla boole dimbali. kon euh, ragal na dañuy dem ci benen poñ bi. té yaakaar naa bi sax sëñ daam ubbi amna na ñu introduiral nañu euh euh cofeel gi ñu wara am ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu sànq damay wax ak Ibrahima Diop mbokk yi ma ne ko man mënumaa consevoir kuy wax ci yàlla baa ngay wax ci rasulullahi baa ngay wax ci Sidi Ahmed Tidiane di feeñal leneen lu dul yàlla wala yonent wala Cheikh Tidiane mu ne ma ah waaw Serigne loolu noo ko mën a expliquer ma ne ko est-ce que ku kuy nelaw ñu fëgg la jox la convocation bu bu jugee dikk wala DGC bu bu Paris bii ndax di nga continuer say nelaw Mouhamed. dootoo nelaw de am na problème yoo xamante ne kenn du ko am di nelaw am loo xamante ne kenn du ko tal di nelaw loolu loolu li may bëgg a wax foofu mooy ku toog ci mimbaru yàlla mimbaru yonent bi mimbaru Cheikh Tidiane waroo dugg ci lu dul yàlla wala yonent bi wala Cheikh Tidiane waroo am na détails yoo xamante ni sa yoon waru ci nekk wax ndax waroo koo tal yow cofeel gi nga am ci Cheikh dafa war a mëdd sa xol mëdd sa xel jàpp sa jëmm jàpp say làmmiñ ba doo wax leneen mënoo wax leneen lu dul Cheikh doo mën a wax leneen lu dul rasulullaay doo mën a wax leneen lu dul borom bi tabaraka wa taala loolu ci la ñuy wax tuuti ci mbëggeelu ah, Cheikh na Ahmada Tidiane euh, wax naa leen ko ci anglais keroog bi may nekk ma Malick si sama mbokk élèves yu bari dañ ñëw ci man ne ma sëriñ Mor ma ne la béykat mu ne ñu ne ma ñun dañoo bëgg bëgg nañ yonent bi ndax amu jullit bu bëggul yonent waaye dañ ko niñ ko bëggee dafa des dañ koo bëgg gën a bëgg ba ba jeex ci moom ba ko yëg di dund ak moom fu ñu toll sopp ko ba mu ba mu dugg suñu xol yi ak suñu xel yi ak suñu ruu yi dugg suñu jëmm ji ba fu ñu toog nekk ak cofeel yonent bi billaahi laa la wax élève ndeysaan man leen pourtant loolu ngeen di wax ne ni mu jafee ci yéen ci seen xol ba ngeen yaakaar ni mënul ne man leen am na bunt bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw pour am loolu hmm. ñu ne ma nga ni man leen waaw waaw te gratuitement laa leen koy jox ñu ne naan la man leen bëgg leen Cheikhu Tidiane man leen sunu maam alaaji Mouhamad Ndiéguène radiyallahu anhu bés damaa ñëw ne ko maam munu ma laa béykat ma ne ko damay eh, dégg ñu ne gis yonent bi moo gën a yomb gis Cheikhu Tidiane mu ne ma waaw demal ci ginnaaw fii nga xool ginaar gi boof mu ne ma ginaar gi soo ko gisee soo ko dàqul loo ko yëkkatiwul mu ne ma doo gis nen yi ma ne ko dëgg la munuma ne Cheikhou Tidiane du nen du du xotti nen ba sax munuma Cheikhou Tidiane du du du lay weex ci nen ba sax munuma Cheikh Tidiane moy jaune ba. munuma lol motax do agge Cheikhou Tidiane nga xamni yaangi ci bir système le système mohammédien parce que le système ahmédien est incorporé dans le système mohammédien c'est le c'est le centre névralgique du système mohammédien motax do do do do do doo ci Cheikhou Tidiane jëlal kaamil nga teg sa loxo waat ne àgg nga ci biir Seydina Muhammad relation boobu tamit moom la yonent bi am ak yàlla te kat sànq Muhammad maa lay wax nga dund yonent bi ci biir Cheikhu Tidiane ci biir yonent bi moo gën nga dund yonent bi ci yow wala nga dund yonent bi ci yonent bi mhm. ndax bu dee yonent bi dooleem moo tax antanoo ko bu dee yow sa sellaay moo tax mënoo àgg ci moom waaye bu dee Cheikhu Tidiane nag nga dugg ci système am ci biir système yonent bi système yonent bi xamul beneen reconnaître kenn ku dul tijaan kon yow doo jugee ba dugg ci biir système yonent bi système mu fago phagocyté la am magasiné la boole la ci boppam ah nga def say mise à jour ci moom moom Cheikh Tidiane yi su yonent bi tourné di la xool du la xoolee du du la gis ay Cheikh lay gis lii mooy njëriñu mahabba Cheikh Ahmed Tidiane waaye maa ngi lay waatal ci yàlla ne wax ji soo ko dëppee rek xam li ma wax waaye wallahi doo juumee ba nga bañ baa nga diingat baa nga noonu baa nga déconnecté wu ci système ahmédien xamal nga ni xamal ni dootoo dugg ci système mohamédien ba yowmal qiyaama mooy ku noonu Cheikhu Tidiane génn nga ci yonent bi yonent bi génn na ci yow dootoo am dara ci àdduna dootoo am dara ci àllaaxira maa la ko léegi bi ci des mbokk yi loolu yaakaar naa doy na ci wane cofeelu Cheikh Tidiane yi bi histoire bi yaakaar deg ngeen ko ren moy histoire bi nga xamanteni mom la bëgg ñëpp retenir ko moy histoire kan Cheikh Mouhamadul Hafiz Atijani al Shinqiti le Mauritanien. neena la ta salat faatiha tasaro neena mbolo mu mu tok xamna kuy shérif ak kudul dul shérif. waaye bi salat faatiha tasaro neena xametul kenn ñëpp ay shérif lañu ku sikkar salatul faatiha rek dal di nek shérif. lolu xana lolu rek motax warna tax ñu bëgg cheikh Tidiane ndax day day dalay defal jalis spirituel dinn sa dret ba mu set. défal la deretu Seydina Mouhamed ta deretu Seydina Mohammed moy gën gi deret loolu moo tax Cheikh ñom ñëpp ñu leen di wooyee tijaan pourquoi parce que à partir du moment que Cheikh défal na la jalis spirituel défal la renaissance spirituelle defal la euh, euh, spiritual revival dundalat la Cheikh Tidiane yi da léegi nag mooy sa baay te nit day jël santu bayam Mouhamad du dëgg te ñun sunu baay mooy kan mooy Seydi Ahmada Tidjani moo tax ñun ñëpp ñu nekk ay taalibe Cheikh Ahmada Tidjani ñu tudd nan les Tidjani les disciples Tidjani pourquoi parce que notre père spirituel c'est Maulana Ahmada Tidjani e quel excellent père mooy gën gi père ndax sunu père kii père mooy Seydina Mouhamad kon yow sama mooy yonent bi directement de moo tax taalibe Cheikh yëpp ay shérif lañu loolu moo tax ñu ne tariqa bi mooy mooy moo moo moo am ñetti tur yi mooy tariqatul ulama tariqa borom xam yi طريقة الأولياء ولي هي طريقة الشرفاء طريقة العلماء طريقة شيخ مو أوب برودكسيون ليترير إكريتور دوفراج إي دو ليفر مو كو أوب تي موند إسلاميك لول غسو لين كو نين خول باخ لي ما لين دي لي طريقة تيجان برودير تي أدنا كين موسكو برودير تي الإسلام مسلم أم داكور طريقة الأولياء وليو ولاية لان موي لان موي بروفو ولاية موي زيكار بو a zikru manshuru wilaya zikkar bu sax zikkar bu dul dañ képp koo xamante ni mënatoo tàggalikoog zikkar rek xamal ni am waliyu nga te tari tarixa ci cheikh ñëpp ci zikkar la sax suba ak ngoon guddi ak bëccëg ah laazim suba laazim ngoon wasifa suba wasifa ngoon hadaratul juma fu ñu toll di zikkar salaat fati loolu moo moo tax mooy tarixatu lawliya bi ci des mooy tarixatu shurafa tarixatu shurafa nag dafa am ñaari niveau benn niveau bu njëkk mooy ban mooy tarixa bi mo upp ay shérif yo xamanteni ni yonent lañ demal fu la neex ci aduna bi nga geuss li ma la wax bi ci dess tamit tarixa bi ñëpp shérif lañ ndekati on devient shérif dans la tarixa tijaniya billahi dereetu ku zikkar salat fadi bam saf ci yow billahi duñ ko dindé dereetu yonent bi lañ fay fekk xana rek di fatali phrase bi ngay wax chaque jour né nga cheikhna Ahmed Tijani shérif et le shérif qui shérifie ses talibés c'est ses talibés billahi way Mouhamed wa gis nga xasida bobu mo bind gis nga wax ji momu di gëna neex wallahi wax ji dafa neex de. Mhm. c'est le shérif qui shérifie ses disciples ses talibé loolu musul am xolal gis nga nitu yalla yi sen xam nga fan la tollu Muhammad fan la yam mhm. moy jox la sen barké sen barké sen barké lan lay jox mhm. ngay ñaan muy nangok ngay ki ñu lay magal ak dila la jox cieur waye sen mbot Cheikh Tidiane moy ben wali bi joxe mbotam dalay jox mbotam bo nopi pour joxe preuve ne jox na la mu jox la santam. parce que si on dit que cheikh cheikh non Je suis dama cher nit cher la cheikh di génération 1735 la je lan ok nous dem ci un point bi le quatrième point bi Le mhm. quatrième point c'est la question que vous muy poser le monde entier question comment ku ci répondre ci souf tamit bëgg naa ci seen gëstu seen euh, culture yéen ñëpp xam nga dama wax ne euh, sama maam dafa ma wax ne Cheikh Tidiane du xottu nen bi du coquille bi c'est pas le blanc de l'œuf mais c'est le jaune d'œuf jaune d'œuf kan moo xam nan lañ koy waxee ci wolof ku ko xam na ma ko bindal commentaire <laughs> ku ko xam na ma ko bindal commentaire jaune d'œuf nan lañ koy waxee ci wolof ñu dem quatrième point bi Mohammed, question bu may laaj waa àdduna yëpp la mhm. te question bi bëgg naa Ndiogou Mbodj mu des fi ba faw dagg ko

si sama xam-xam bu gàtt de yaakaar naa ne loolu mënul nek lutax mën ta nek mohammed nit mom mënoo nax génération génération génération loolu mënul nek déjà rek buñu xolé ci talibé mi rek Cheikh Omar Foutiyou Tall bokk na ci talibé mi te yaakar yaakaar naa ne moom li mu liggéey si diine bi ñepp tek nañ ci seen bëtt ñepp xam nañ ko. allahu akbar xam xamum fi mu tollu ñepp xam nañ ko. te danaka da fay woote ne talibé Cheikh Ahmed Tijani. kase man de ci man loolu rek.

taalibe yi mu am yëpp ci àdduna 300 millions de taalibe nga nax ñëpp ñëpp dof ñëpp ñëpp kenn xamul ñëpp nekk ay naaguru ñu nax leen ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nga boole ci naxaale nag toutes les générations depuis 1735 ba mille ba 2018 nga nax ñëpp man loo rek laay lekk lii ku ci tontu jàng yi jeex mais Cheikh Tidiane dafa mën a nax mais lu tax ma wax leen ne tariqatu al al ulama tariqa tijaan moo ëpp borom xam-xam ci mbo yoonu yi nekk ci l'islam yëpp partout dans le monde loolu kenn du ko weddi tariqa tijaan moo ëpp ay waliyu ñëpp ay waliyu lañu tariqa tijaan moo ëpp ay shurafa xanaa xanaa shérif sax seen maam yonent bi war na leen wax ne leen déedéet bu leen topp waa ji day naxaate te borom yi kës fu ñoo nekk ci tariqa bi borom yi cër ñuy gis yonent bi ba tey jii ma lay wax nii ba tey jii am na ci ñoo xamante ni soxla bu ñu am yonent bi la ñuy waxal fii malay génération bii ma lay wax waxuma la 2016 waxuma la 2015 waxuma la 1997 waxuma la ñooñu de dama ne la fi mu ne nii ma wax nii tey jii léegi nii malay wax am na ñoo xamante ni duñ soxla woon yonent bi duñ ne duñ jàngee benn salaat faatee yonent bi taxaw ñu ne ko nangam ak nangam. sallallahu alayhi wa sallam waaw. nañ waxante dëgg nag mbokk yi. Mhm. nañ waxante dëgg loolu mënul nekk. Cheikh Tidiane ne peut pas tromper toute l'humanité depuis le, depuis le 18e siècle. Il ne peut pas tromper tous ses disciples. C'est pas possible. nañu waxante dëgg kon am na lu xew li xew mooy lan soxor ak bon ak iñaan ak yaree diku ak bañ yonent bi ak bañ l'islam loolu lay leeral légui mbokk yi dafa am benn nañu commencé sax mbokk yi wax ju siiw jooju ibnul arabi radiyallahu anhu waxoon bind na téere bi 500 ans avant la la la venue de Cheikh Tidiane 500 ans mohammed lum mu wax ci ci ci ci lol dane khatimul wilayat xatmul wilayat le sceau de de tous les saints de tous les awliya néna na Abul Abbas lañ koy wowe cinq ans avant Cheikh wax noté len bu baax limay wax abul abbas lu tudd mom lañ koy dakantalé xamna ni ñepp xamna ni Cheikh Tidiane dañ koy woy abul abbas ben ngok d'accord mhm. bi ci res mu ne fas la ay mbiram di také madinatu fas d'accord mhm. ñettel bi mu ne pour ngeen xamé ku deug na ngeen xamni ku bari non lay doon <laughs> ku bari noonu lay doon ñetti mandarga yi mooy mandarga yi gën a rëy yi ñu waccaloon Cheikh Tidiane te boobu Cheikh Tidiane ñëwagul jamono juróomi téeméeri at avant comme ni Seydina Isa waxe woon juróomi téeméer avant la venue du prophète ne yaati min baadiya ismuhu Ahmad waxul sax Mouhamad Ahmad la wax juróomi téeméeri at avant Cheikh Tidiane ñu si euh, Ibnul Arabi wax ne xaatimul wilayati xatmul wilayati khatimul awliya muy sid Ahmed Tidiane Abul Abbas lañ koy dakkantele fas la ay mbiram di euh te li caractéristiqueum principal moy ku bari non lay don japp len lol ñu dem. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla wax na ko ci hadithul qudsi ne ko kep ku nonu ku ma noonul sama waliyu dàkkal déclaré na la gel man aada li waliyan faqad azantuhu bil harbi jappal bobu amna ben nit yàlla bu mag bu ñu wax al hadji abdul Aziz Dabakh ku bari jàmm la waye bim deme ba gis gaay di dingat Cheikh Tidiane dana tay nak dina am numa waxe no xamanteni musuma ko waxe mune wa munkiran hizb cheikhi tijaani xis yu ko baani mu ne képp koo xamante cheikh na Ahmed tijani xamal ni sa toroxte lu nan fàng la fi ci aduna to du ëllëgi àllaaxira kenn mënu laa ramm خلال واجي لي مخ فا انك قطب الوقت والحال شاهد على الرغم ان في الحاسدين الكواذب واجي نينا شيخ تجاني محمد فانك قطب الوقت يا ياي سانغو جامونو ياي سانغو جامونو ييب كيب كوي ولي ياي كليفام تي ني نيوك اك ني موجو امول كين كوكو دي كوي كو ويدي لولو تا فك رك يو ديمو تي حضر يالله با waaye ku fa dem ba gis cër ba yàlla jox Cheikhu Tidiane ci wetu yonent bi billaahi dootoo weddi ne mooy kilifa bi képp koo di dégg muy diingat ñu ne nit yàlla la wala sëriñ la muy diingat cëru Cheikhu Tidiane bi xamal ne demagul àggagul suy dox ci yàlla tamit àggagul waaye su àggee ba ba ñu murul ko murul ko kiraay mu gis Seydina Muhammad toog Seydina Aboubacar toog Seydina Omar toog Seydina Ousmane toog Seydina Alioune toog ñu gis Cheikhu Tidiane kese kese kese am capacité ak possibilité toog ci wetu Seydina Muhammad nga xam ni kii du morom benn góor moo tax mu ko ala rahmi an fil xaasidina al al kawazib mu ne ko yow ñi iñan ak fenkat yu magi kasse kase kase kase kase ñoy weddi ne yow yaay borom jamono yaay waji nga xamanteni ya jité wolu yalla yeb mbokk yi dama bëgg wax ben sew-sew rek bala ma dem ci lima bëgg wax deug deug ndax tay al qur'an lañu wara waxtane <laughs> wax ja wax ja nga ñew de dafa am lo xamanteni il faut que ñu comprendre ko l'efficacité et la qualité, la haute qualité, je veux dire, de l'éducation spirituelle de Cheikh Nahmane Tidjani, mais euh, Sénégal nga le xamee je vais vous donner un exemple rek le domaine bi may vais nag maa ngi waxee ci domaine u jàmm xam ngeen ni jamono yi ci ginnaaw jamono yi ci des choses na wax yu bon yu ñu wax Cheikhu Tidiane ñu dégg ko ci réseau sociaux yi dégg ko ci YouTube dégg ko ci Facebook te ña ko wax ba tey jii ñoo ngay lekk ceeb su fekkuloon Cheikh Tidiane yar ay njabootam su fekk fekkuloon Cheikh Tidiane xamal ay njabootam ne waa jooju doon jéem a wala gaa yooyu doon jéem a saaga Cheikh Tidiane di wax ci moom lu bon ñoo ngi mel ni comme ni ko sama soppe ba sëñ Ousmane Diallo di waxee ñoo ngi mel ni yoo bi nga xamante ni dafa ñëw ci suufu montagne bi di ko ëpp pour montagne bi daanu. Mouhamed yow bu ñëw ci suufu montagne di ëf montagne pour mu daanu. Hmm? mënul sonal montagne de. mënul sonal montagne yow bi ëf montagne pour mu daanu. Hmm. moo tax faalewuñu leen waaye loolu day wane ni Cheikh Tidiane yar na ay njabootam. waaye lii ñooñu wax Cheikhu Tidiane ba tey jii di lekk ceebu senegal suñ ko waxoon beneen sëriñ kenn waxatu ko. Hmm. loolu day wane ni Cheikh yar na ay njabootam. ci yar ci teggine ci bayyi xel ci sop ci bëgg ndax té dañ leen di may tamit li ñu wax ci français le bénéfice du doute moy lan toujours dañ lay port. porte parce que bari na ño xamanteni dañu commencé di dingat Cheikh mujj gi bañu yalla balen yalla leen ki raya dañu dañoo mujj xam Cheikh Tidiane rek fi nek peut-être chance bobu lañ leen di may yalla ñu yalla boole dimbali mohammed nga teunk euh, tuuti bala ñoo dem nak ci ali kalaj gi wax gi wax gi deug deug deug wax gi ndax teunk nañ wax ci cofeelu Cheikhou Tidiane njariñ bi mu am. Ah. waaye tamit noonu waliyu ak noonu euh, euh, euh, ku yàlla gërëm ak bañ shérif ak bañ waa kër Seydina Mouhamed sallallahu ak li waa wax ne ku ñëw daal gis Cheikhou Tidiane. خمني واجي موي واجي لقد قال بعض القوم اني مذنب فذلك الذنب لست منه بتائب واجي نينا دال غا يو بري نينا دال لما بغي شيخو تيجان دال بكار لا بوكال يالا لا واي نينا بكار بما ديف فاسينا نا تي توبال يالا بام ديس بكار بي بكار بي دال ماغي نان يالا مو دولي ما تي بو باخ مي غنا ام بكار bu dee lii mooy bàkkaar bëgg Cheikhu Tidiane bëgg Rasulullaahi sallaa sallam mooy bàkkaar mu ne yàlla na ma yàlla dolli ci bàkkaar yi ba ma gën cee feesle dell dell dell dell dell dell parce que fa innaka xutbul waxti wal xaalu shaahidu naka yow Cheikh Tidiane yow yaay xutbu jamono yaay kilifa wali yëpp wal xaalu shaahidu te ku ku ko weddi rek na ñëw jàkkaarloog yow damaa wax barki démb ne Mouhamad amul kenn ku mus daw di ñëw di seet ci Cheikhu Tidiane lu dul doo ubbee kàccit buntu ba yonent bi ngay jàkkaar moom noonu la ko yàlla defal parce que léppam yonent bi la te incha allah du ñàkk ci beneen waxtaan dinaa leen expliquer loolu nan la mën a nekkee yal nañu yàlla boole dimbali nga euh, wax euh, li nga bëggoon a wax su paree ñu soogo a dem nag ci mbir mi dëgg nag alquran ji nga xamante ne nag moo lëmbee jamono mooy kàddu yàlla bi. ah moom kay xanaa ci ci troisième point bi nga waxtaanee léegi xamal nga ñu si kan mooy Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu xamal nga ñu wàllu yi di ñu ñu wax ci moom. Mhm. moom cheikh ahmed tijani cherif radiyallahu anhu moom hmm. mooy khatimul eh, awliya dal moom hmm. mo nek njitu awliya yeb hmm. barakallahu xana rek comme li nga wax amna ñu bari ñu koy dingat ñi di ko saaga ñii di am luñ koy wax waaye comme ni nga ko rek li wone ne yarna ay talibé moy nit ñaa wax waaye ñi ngi lek ciép ñi ngi dox seeni soxla biir Sénégal sans kenn wax ak ñom sans kenn wallahi waaye dal Euh, xam naa ne ñàkk xam mën na am moo leen jàpp wala boog ñàkk am teggin rek ci ci wàll yu ndax koo xam ne comme ni nga ko waxee sànq rek koo xam ne mooy sëriñu Cheikh Omar Foutiyou Tall sëriñu Seydi Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu sëriñu Baye Niass bu ñu xoolee si ñooñu rek comme li ngay wax chaque jour rek nga ne nit boo ko boo bëggee xam fan la tool da koy xool ci ay taalibe ceex na ci ay disciple wallaahi te képp ku xool taalibe yooyu mu am sans compter ñi nekk ci jamono ji nekk ci si dëkk yëpp di Fès di Sénégal Nigéria Égypte ñooñu fi ñu toll ci xam-xam rek war nañ ko jox euh, gëdd bi nga xam ne moom la yelloo te balaa ñuy wax peut-être nañu nañu xoolaat li ñuy wax daal fan lañ ko teg ndax ci xam-xam lañ ko teg wala ci daal te am na loo wax jour bale rek xam naa mooy quatrième point bi ndax yaa ngi wax ne képp ku xas wala mu saaga Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu Euh, doomu Ndiaro loolu nag question la boo xam ne ñu ñëpp di jaaxal nañu parce que man sax woo naa la naan la ah sëriñ bi li nga wax nii day bëgg nañ ci bëgg nañ ci leeral xanaa joxaat leen kàddu gi rek ci ngeen leeral ñu loolu ci ci quatrième et dernier point. Mouhamed xam ngeen mënoon ngaa dolli waaye fi ne nii dara intéressé la lu dul wax ju rëy jooju nga xamante ni moo lëmbee jamono euh, xam nga Mouhamed Cheikh Tidiane dafa am ay doomu ruu. mooy ñii ma wax ne da leen a jël jura ëmbaat leen juraat leen génn seen deret def ci deretu yonent bi ñoom tamit mu ñu jàppee ko un père spirituel un père moral waaye gis nga ñoom abu lahab ak ab saay-saay ñi ñuy wax aswadaani ñaari aswad yooyu ak ki ñuy wax walid ibnul mughira gis nga ñii ñooy noonu yonent yàlla muhammad ya est-ce que xam nga ni ni che ni yonent bi amee ay héritier ñoom la ñoo noonu yonent yooyu noonu lañu amee ay héritier ni Cheikh Tidiane amee ay fils spirituels yonent bi am ay fils spirituels noonu la noonu yonent yooyu am ay fils spirituels jusqu'à la fin des temps kii ma tudd am na ñu ma tudd waaye kenn laa ci jël parce que kooku moom la yàlla waxal ci alxuraan wax ju leer naññ ku ñu xoolit nu Mughira mooy wër àdduna bi di diingat yonent bi di ko saaga di ko wax wax ju bon ba loolu soof yàlla déglu leen bu baax li may wax ci ngeen di gëmee ne képp koo dégg mu diingat yonent bi wala mu xas ko wala mu wax ko lu bon ba keroog yowmal qiyaama lii maa leen ko wax walla ngeen dégg ko mu diingat Cheikh Tidiane wala mu xas ko wala mu wax ko lu bon ba yowmal qiyaama kuy dingat cheikhou tidiane ak kuy dingat yonent bi dañoo yomba xamé man nak ma leni jox étiquette bi nga xamanteni ni gisé nit ki def ko rek xamal ni lol ci loñ ci ñooñ la bok ta lol alcorane moñu ko wax xam nga dama leen wax kérok ne len preuve yaangi fi ci alcorane di wone ni ku dingat cheikhou tidiane wala nga wax ko lu bon wala nga nga garal ko sun le gesto rek doomu ndialo nga seto alcorane ñu ko wax ku dingat yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sun la gesto doomu jaaloo nga alcorane ñu ko wax doomu jaaloo nak man nga wax ne ah man kat nangam ak nangam diwut ay lay dedet njaaloo njaaloo ci bir sey sax am man nga am jëkkër am ñetti doom dem njaaloo ñentel ba mu ñew ñu mu sant sant ba fekk bokku ca dafa am lo xamanteni ni gor mënu ko gor nit ku set mënu ko tim ku melni cheikhou Tidiane diko saga di wax ci mom lu bon di ko di wax am surtout ñi nga xamanteni duñu wax tu sens la haine da ngay xam ni ñi dañoo bañ cheikh alcorane nee ñu ñoo ñepp do leen gesto wala ngeen set maire ya ci koñ ba wala pa yeen dekkal so leen gesto duñ laaje rek ay doomi jaalo lañu motax fo leen gisati ku diingat yonent bi wala mu nga cheikhu tidiane bu leen hésiter xam leen ni doomu jaalo la setul alcorane ñu ko wax ubbi leen sen muslim pro yeen ñepp ubbi leen sen kamil suratun nun wal qalam ubbi leen ba aaya 10 ubbi leen bu leen ko tayal ubbi leen ubbi leen ko ubbi leen suratu nun wal qalam suratul qalam nun wal qalami wa ma yasturun aya 10 bind leen ko yéen ñi mëna bind gaay yi mën koo ubbi xool ko ubbi leen ko ngeen xool kenn ku ñu wax Walid ibnul Mughira moo wër di saaga yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko defal campagne comme ni gaay di defee campagne ci Facebook ak YouTube ak réseaux sociaux yi di saaga Cheikhu Tidiane même chose yonent bi dama ne nit doo ko doon ne tu xoolal tu hérites de ses passifs et de ses actifs Mohamed Mohamed biñi def suñu premier cours de droit dañoo jàng luy patrimoine man bi may jàng damaa jàppoon patrimoine moy alal ji nga yor Waye suñu professeur bi nañu déedéet patrimoine moy say alal ak say bor allahu akbar mhm. <laughs> juriste Moy sa asa alal ji nga am ak say bor parce que alal ji lum bari bari bari ah soko bolé ki bor alal ji day dem ci bor ya kon lepp alal ji sa alal la batay hmm donc euh lima bëgg wax fofu mbokk yi rapidement moy borom bi taala moo def ni Cheikh Tidiane moo doon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam di héritier di xaatimul wilayat kon ni lépp lu yonent bi am ci ci ndam ak cër ba mu des nubuwaam gi dina ko jël mooy professeur waaye lu yonent bi am ci natt tamit dina ko jël kon lépp lu ñu wax ku ku def yonent bi dara wax jooju tamit day dalaat ci kaw ki def Cheikh Tidiane dara yàlla nee na yonent bi bul topp Walid Mougira lay wax ba tey de waaye wax ji tuddul turam parce que wax ji c'est général ñëpp ko bokk képp ku diingat yonent bi wala nga diingat ku doon yonent ba yawmal qiyaam wax ji yaa ko moom yàlla nee na walaa tutix kulla xallaafin mahiinin bul to bul topp yooyu yonent bi bul topp képp képp koo xamante ne xallaafin waatkat la xool leen ñoom seen wax wallahi duñu bàyyi sunna wallahi sunna du dee gis nga ñu toll dañuy waat rek xallaaf la yàlla wax mahiinin ñu méprisable lañ ñu torox lañu xool ni ñuy ni ñuy ñaawee gis nga ni ñuy ñaawee Mouhamed mm-hmm. gis nga même bu ñu amee sikkim gis nga ni ñuy ñaawee mm-hmm. gis nga seen kanam yi muy tàkkee fu mu tollu soxora ciy nekk mm-hmm. wax yu bon wax yu metti fëgg taabal coow yuuxu mahinin ñu torox lañu hammazin dañuy sos hammazin waylun li kulli lu lumaza dañuy sos diffamateur lañu xoolal dem nañ ba wax Cheikh Tidiane ne Michel la tuddoon xoolal loolu ne Cheikh Tidiane ay taalibeem duñ julli tàkkusaan ne Cheikh Tidiane da def pact ak jinne yi nan moutal sam lu nek ci ay fen ñu ñu ñu wax ko ci haqu Cheikh tijani radiyallahu taala anhu bi ci dess yàlla neena masha'im bin mimin ay colporteur de médisance lañu ay jew kat lañu te deug la li ñuy wax ñemewuñu ñuko wax Medina bay ñemewuñu ñuko wax Tiwaawan ñemewuñu ñuko wax fen Facebook bi lañ ko ñemee wax ak YouTube yàlla neena manna'in lil khair ñom ñep ay téré lu bax lañu. mooy dañuy fexe nit ñi bàyyi wasifa ak wérd te loolu mooy lu baax grand empêcheur de bien mu'tadin ay tooñkat lañu wallahi tooñkat lañu asimin ay bàkkaarkat lañu utullin yàlla nee na seen xol comme xeer dëgg la ku bañ Seexu Tijaan bañ waa kër yonent bi sa xol amoo xol xeer nga yor bi ci des moo ci gën a garaaw yàlla nee na zanimin zanim mooy bata bataar ci arab zanim mooy bataar doomu njaaloo lañu wax jàngoog kon suurtu nun wal xalam preuve yaa ngoog koo leen déggati mu diingat yonent bi bataar la koo leen diggati mu diingat Cheikhu Tidiane bataar la muy imaam ak ustaas ak borom xam-xam ak borom sikkim ak waaraatekat ak ñëpp ci yam koo déggati mu diingat yonent bi wala mu diingat Cheikhu Tidiane xamal ni doomu njaaloo la alxuraan a ko wax du sëñ moor a ko wax Cheikhu Tidiane waxu ko yonent bi waxu ko benn borom xam-xam waxu ko yàlla moo ko wax ci moo ngi nii suratu nuur wal qalam ubbi leen ko aaya 10 ba aaya 20 xool leen aaya yooyu wala tuti kulla xallaafin mahinin هماز مشاء بنميم بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم zanim mooy njaalookat te Walid ibn al-Mughira bi ko yonent bi waxee ne ko njaalookat nga mu mer ne kii déedéet loolu mënu nekk dafa dem ca ndeyam wax ko ne ko waa ji kat nee na njaalookat laa doomu njaaloo laa waa ji kat waa ji nee na doomu njaaloo loolu exprimer ko mu ne ko dëgg la sa papa awraam dafa gàttoon mënu ma woon mënu woon tëdd ak man sàmm bi sàmm bi la jël ma ma maa tëdd bi nga juddu ci ngir alal ji bañ dem. moo tax koo dégg muy dingat Cheikhu Tidiane doomu njaaloo la setul ku set du du saaga Cheikhu Tidiane du saaga yonent bi sallallahu alayhi wa te ku saaga Cheikhu Tidiane saaga nga yonent bi ku saaga yonent bi saaga nga Cheikhu Tidiane loolu moo tax ci sama woy wi ma daal ne soo xamoon Moustapha li ma bokk ak Cheikh baa nga xam Cheikh Tidiane li mu bokk ak Moustapha doo saaga yonent bi doo saaga Cheikh Tidiane yi ndax ko sa ku visé cheikhou tidiane billahi yonent bi ngay jam ndax ki moy ji jëm ja ki moy ji ruuga ki mo di asaman si ki mo di souf suuf si ki mo di seut ba ki mo di mam je ki mo di mam je ki di seut ba kon alhamdullilah rabbil alamin mbok yi wax jangok yaakar ñi doon xaar tontu bi dem lañ ci suratul nun wal qalam di ngeen ko fa fek mu tok ni zëm di wax gi yeen alquran ji du dañ du jeex generation yëpp yalla dafa xamni ay say say yu bari nga waji ñew motax tudul sax walid nul mughira dana rek ku def li ci wa ci yonent bi salaa salaam ak ñi ko doon ñëpp yaa ngi ci foofu kon foo leen déggati kuy di nga Seexu Tijaan kum mënti doon xam leen ni doomu njaaloo la kon sëñ Mouhamed nga daal di sànni say kàddu ñu ñaan ba beneen yoon ñu àggale liggéey bi incha allahu taala bu subaa ñu jéem seet nu ñuy defee clôture bi yàlla nañu yàlla boole jàppale bismillah ah bi moom kay wax ngeen lépp mhm. leeral leeral ngeen daal li ñu li lëntoon suñu xel bi fan yii yëpp ndax biñ ko déggee depuis jour bële kay bind nañ leen sax di leen laaj ah sëriñ bi li ngeen wax nii Euh, yéeme na lool waaye daanaka léegi moom leeral nga ko bu baax te wax ji da nga koo teg foo xam ne kenn mënul bi kenn mënul am sax looy xalaat wala di jéem a comprendre même boo jéemee am un boo xam ne dafa xaw a jàdd daal ngay jéem a comprendre naan ah sëriñ bi est-ce que juumu loolu mënul nekk ndax wax ji dafa leer naañ alquran moo ko wax suratul xalam verset 10 ba 14 walla 15 boo ko liiree di nga gis exactement ne suñu borom ñooñu di dingat cheikh wala di dingat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom tontu na leen bu yàgg kom comme ni nga ko waxee rek kon daal xanaa rek di wax ne jaarati nga fa nga daan jaar rek wax nga wax ji indi nga preuve yu leer taalibe yi comprendre nañ sant nañ leen bu baax a baax a baax loolu daal laa amoon lu ma si yokk. alhamdulilah pour man li ma ci doole tuuti Mouhamed mooy c'est-à-dire que zanim la yàlla wax xam nga du waxoon beneen moo boo xamante ne day insinuer. waaw

نقول لنسنتر ربي إني صدقت كل وليين راعيا قدرهم بعين احترامي